macha allah. salaamaaleykum. maa jonguma ci kër nag. ah déet déet loolu kay du ma noonu. mënumaa dem mënumaa dem te te te jël si ma jël si ma sama sama kii. maa dégg di góor félicitations. merci beaucoup. ñu jomb la de. maye ngeen ba pare. maye nañu jomb la te. Euh, wax naa ko léegi ci ñi la ñaan si. mooy la ñu ngi leen may xale bu baax mais xale bu am fula. <laughs> ku xam li mu bëgg. Mm. te duñ la may. surprise li mu def léegi rek wane na pour la fayda ji nga xamee. moom la xam ci yow. ñëw na ak ay bokkam. geste bi ñu def fii léegi xam nañ ne ñu ngi leen di may ku am fulla nit nag dafa am ñaar yoo xam ne ñooy buntu yooyu duggee ci moom sëram ci la bokk sagal gi nga ma sagal fii. yàlla sa sëy bi barkeel alaaj njógo kontaan na ndax personnalité gi mu leen bàyyi leen ak xam yéenay kan xam nga dafa war a xam mooy kan ba ku ñëw wolof daf ne baat baatu uuda nu mu la gisee la lay awale li mu gis ci yow rek moo tax mu doxal ni ak ay bokkam yàlla sa sëy bi barkeel ba la neexoon ne am naa tu Sénégal xam nañ ma man fu ma dem ci monde bi sabel lañ may ñaan ñëpp la bëgg waaye nga toog xam yaw yaay kan xam li nga war a def moo tax bis bi jombal te ñun ñëpp sagu nañu

macha allah. félicitations. merci beaucoup alors ça va. ça va bien. merci beaucoup merci. merci beaucoup. macha allah. Gracias. sama doom ñëw na. soo say mu ko fekkee rek su ana chéri Mohamed. ana pilifoor Mohamed laay woo ana Sabel Jee. nii rek ngay mën a demba yaasi kumba bey ma jaxu goone xarab laa be ndeene caam de ma jege na demba ngoor demba fari kumba cana maaji geen sama doom ñëw na fula gi teew maa ko xam lislaam gi teew maa ko xam sabel ana borom càmmi ñu ñaawul ñaañi ne ana xaritu Pape Malick su ma la Malick dinga ma woyoon de kati degen soo say bari lu mel ne layoo bi jeex ana de basi soo say doom ya màggee ak ay sa ngoon say naa ji bay leen doom ya màggee ak ma jeggi bey leen luma mi gone góoru kaati ko digin soosaay prifoor Mohamed hmm. li nuy may janq lan la may léegi ñoo ko nangu hmm. sebel li nuy may janq lan la may fula gi ci yow maa ko xam aji mbaay kondi mbax gi ci xam waaye il faut nga am lu baax ay sangom sa yaay dafa la yoo jeggi bayay leen demba ko dum ci den maam far bay teeñ te ngoone par bi ci làmbaay jaxe dembe yaay ñaay sama doom ji ñaw na layoo bi jeeg kàtt ko di ganoo ba doom ya na ate ate leen say layoo na jeeg bay leen layoo bi bu doom ya ma jeeg ate liggéey naa jéggi béy leen. naxal ma Mouhamed kaay petit la tàccu leen. naxal ma Mouhamed moom petit la. petit la petit la petit la moom dafa tuuti ba xamul dara. waaw naxal ma Ahmed kaay waay petit la. waaw waaw naxal ma Mouhamed Sabel petit la. waaye Mouhamed naxal ma Sabel jee petit la. xaja say Muhammad jee xale la xale la xale la dafa tuuti ba xamul dara gàcce ko dëgg macha Allah jaar dem nga mag dem ma ngoor dem ba fari kan ko ma maa jigéen joow ma ne ko néewoon ndax mbaay rëccoo sa ndey daanu wacca lamb nga law la cet yal na ci barke waay waaw maa ngi nga salee waaw waaw wala dana màgg ci bu ko baaxoon ko dana màgg ci bu ko baaxoon mu yàq ko kon balu biire saaji to binta paar demongo mag demongoor sama jomba ñaaw tey ma njiin ki teral ndeyam teral mbokk ndeyam teral baayam am yaanam sama doom jaangi ay tay sa yaay ni mel nit moom ngay mel noor sama doom jaangi nii ñaawoo aayoo gaaf jomba ñaaw ay saa ngi nii toog xarula bi leen li taam kon mbalu bii nga saa ngi ko bi départ dama ngom ak dama ngóor dama bari kan ko ma jigéen doom ma mel ni samba ma gëm ni tax ñu toog xoy ji gile maa fay ngaay yaat ma gile maa fay ngaay yeey sadel خوليتني فلوم من خودات الناس سبق يا من يعلي جابت الغفل بايم قتيا يمجير wala bu nekk lu neex ngay sago man sama doom laay sago ngor gi ci yow maa ko xam tabe gi ci yow maa ko xam fulle gi ci yow maa ko xam fayda gi ci yow maa ko xam yow nekk ci yow man sama doom laay sago sabel jeng laay sago ngor gi ci yow maa ko xam waaw waaw fayda gi ci yow maa ko xam fulla gi ci yow maa ko xam sabel jeng baax gi ci yow maa ko xam ñu ñëw ku la séddoo gañe man sama doom laay sago ku la bañ baax a tax man sama doom laay sago man sama doom laay sago bayaasin kumba bee ku la bañ baax a tax man sama doom laay sago ngor gi ci yow maa ko waaw waaw ngor gi ci yow maa ko ku léegi ci yow maa ko xam ba ci yow maa ko xam yow ku la seddoo gañe man sama doom laay sago waay sabel yow laay sago man de sabel tee laay sago ku la seddoo gañe man ay sa doom laay sago ku la bañ baax a tax man de ay sa doom laay sago ngor gi ci yow maa ko xam fayda yow maa ko xam mu daje ci yow maa ko xam fayda ci yow maa ko xam mu yow ku la seddoo gañe ay sa dundu ngom laay sa góor waay yow laay sa góor man sa belge laay sa góor mu yow ku la seddoo gañe ah. man sama doom laay sa góor ndu maame ngoone góor ka ci ko degen soo saay saay soo saay buri mi mbendee ne ku la bañ baax a tax eh, maa ko xam waaw waaw tabe ci yow maa ko xam eh, ci yow maa ko xam ci yow maa ko xam sa bengee ku gañee Chéri Mouhamed too oh, wa ku la bañ baax a tax man de sabet ah, ah, laay ah, neex naa sagoo doom bi nekk sagoo la macha allah déglu ndeyam gàcce teewu ko ay bokkam. man xam ma dama man xam ma ne dama farloo. li nga bëgg a farloo yaram bi la ko yaakaar ma jël. lan la gàcce te sa ndey ba nga say bokk ba nga sa lépp nekk si kër baax. taalibe sëriñ Babacar moom yaayam bëggul woon ku ko laal sabu nen ne taalibe mëlisi moom yaayam bëggul woon ku ko laal leen ne taalibe mbay si yow yaa yow bëggul woon ku ko laal sabu leen ne taalibe suñ baaba moom yaa yow bëggul woon ku ko laal remeel na benn boor kan ci koor dëgër Maalik yaa sàmm na so say borom kay jigéen nga waaye jikko góor nga yor sa neen jigéen nga waaye jikko góor nga yor maa ba sa baay góor musu ko yab ñu ko jëm sa baay góor musu ko yet la pend bu waaye amoon nga confiance am ndax gisoon na jikko yi ne jikko yi nekkoon ci juga ci na ni ci yow xarug ay soo sa xamul taxawaalu ay soo sa yaay kenn su ko ay soo sa yaay musul fay ba risaala boo sëyul da ngay tooñ boo sëyul da ngay tooñee jëng saala nii nga mën a mel ñaaw xar bu loo benn na jaam kor mayu piike saay ji ko binta baanu dem ngom ak dem ngoor ma bind nekkoon ko showbiz bi di taxawaalu soo fi nekkoon di taxawaalu soo fi nekkoon di taxawaalu ma bàyyi laak réew mi dem tukki ndax man xajuma ku ma yab te ma jaar ci waxee ñu ne papa Malick dafa fiir du maye sabel ah, ma ne déedéet te laay Koko Koko bàyyil sabu mu dem na. voilà loolu la bëgg. yow amul loo bàyyi ko mu dem bàyyi ko mu dem. xam nga lu tax bëggu ma woon maye sebel. ndaxte dafa yore ji ko kilifa. xam nga tax bëgguma woon maye sabu naan na mu moo ndax jigéen la waaye dafa yor ji koy kilifa te koy may duma ko may kuy taxawaalu duma ko may ku koy fowee duma ko may ku koy ñàkkal fay Borom de la penda buur kàcc góor jëgel maane mu dëpp dëpp la ci siine am kaam si man kontaan naa ci yow rus loo boobu la ñoo waaw ma ne waaw ma ne léegi nag taxawaay bi taxaw leen moo xaar xaar xaar xaar nit ñi xaar xaar xaar xaar dina nga def daal accompagner accompagner yow def nga loolu sax mën na waaw lu déglu tuuti rek sama xol bi xol bi moom moom xol bi moom voilà c'est moi moom jëlëf yi. su ma nee Pape Malick ñu jooyee. waaw lu déglu tuuti. Pape Malick. Adja Mbaye yow la ñuy nuyu yaa ngi dégg. Adja Aïssa Gom moo lay nuyu ak ay bokkam. di sant bu baax nag di ñaan. di sant bu baax di ñaan. nit dana nekk ci kër. nit dina nekk ci kër. am xolo bi mbokk ñëw fa di bëgg soxna. mbokk ba ñëw fa di bëgg soxna. baa muy bëgg jël baa muy bëgg jël. wala muy bëgg jëkkër. nga wax fa lu rëy. nga wax fa lu rëy. nga yàq lépp. waaw waaw Pape Pape Ndiol waaw. waaw du si mu gën a sonn day gën a normal mais des fois nag tu n'as pas le choix quoi comme si mu demee. Thank you. moom xool ma fi ma may ma fi baax ma ñëw rek bu ma taxaw noonu. ah non bu soobee yàlla. non loolu am photo waaw salaamaaleykum.